asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi safoo seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara parce que yéen dellu si wax rek ak yéen ci seen émission bii di xam sam réew damay wax ni ko xam sam réew danga war a xam ñooñ sam réew xew-xewi sam réew ak gox yi sam réew maa ngi yéene woon ca Déthié Fo Ndiogou mu njëkk doon dameel ci Kajoor ñëwoon nañu nag ak yéen ba ci Birima Fatim Penda mi nga xamante ni moo wuutu Maajoor mi doon doomi Biram Kordu te doon fukkeelu dammeel ak juróom-ñeent euh, Birima Fatim Penda nag mooy ñaar fukkeelu dameel astafurlah ma maa jor moo doon ñaar fukkeelu dameel Birima Fatim Penda di ñaar fukkeelu dameel ak benn moom mi ngi toogoon ci ndameel gi ci atum junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar moom nag ñi nga xamante ni kodd mi wutu woon Maajoor Maajoor moo doon ñeenteelu géej mu doon dammeel kodd li juróomeelu géej bu doon dammeel Birima Fatim benn ñaar fukkeelu dammeel bi ak benn mooy juróom-benneelu géej bu doon dameel ci Kajoor moom nag Birima Fatim Penda bi mu toogee rek xamuñu ndax fiiraangee tax walla am lu mu doon tiit manaam xamuñu ndax dafa fiir walla dafa tiitoon ku ko teggee ci toogom bii di gàngu naayam loolu tax na bi mu toogee rek jarbaatam bi ñu doon wax Amari Ngoone la Kumba da ko daal di génne Amari Ngoone Ndeela Kumba daal dem waalo ndax nijaayam génne na ko Birima Fatim Penda nag fukki at ak ñett def na ko ci ndameel gi waaye fukki at ak ñett yi mu def ci ndameel gi yëpp jarbaatam boobee di Amari Ngoone Ndeela Kumba waalo la ko def tegul ab tànkam kajoor ndax nijaayam moo ko génne kon li nijaayam Birima Fatim Penda nekk ci nammeel gi yëpp Amari Ngoone Ndeelu Kumba waalo la ko nekk moom nag di Birima Fatim Penda am na loo xamante ni tuwaab yi dañ ko doon fay maanaam gouvernement France bi fi newoon daa am dëlante yu yàgg yu defoon ba mu am lu ñuy wax galak walla impôt boobu gouvernement France bi da ko daan jox dameelu Kajoor maanaam doonante yu njëkk ya gouvernement France ci njaayum jaam ñi da ci daa jox kajoor daanaka ñeenti livre li ñu doon wax livre muy loo xamante ni doxoon na diggante gouvernement France di neexal boo xamante ni tubaab yi daan nañ ko neexal daan ko jox kajoor ngir mën a wéyal njaayum jaam yi moom nag fukki at ak ñett la def ci ndamel gi mi ngi say ci atum jooni ak juroom ñaar téeméer ak juroom ñen fukk 1790 bi mu saayee nag jarbatam bi mu génne di Amari ngone ndela Kumba moo bàyyi ko waalo ñëw ñu fal ko mu doon ñaar fukkeelu dameel ak ñaar noonu ba leen ko waxe woon ñu fal ko ci atum ñu nekk juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk di juróom ñaareelu géej bu doon dameel ci Kajoor xanaa ñuy fàttali géej bi njëkk doon dameel moo doon Lat Sukaabe ñaar fukkeelu dameel bi ak ñaar mooy juróom-ñaareelu géej bu doon dameel moom Amari Ndeela Kumba mii nag ndameelam gi la xewoon ca ba ba Biram Yaasin buubu saayee te ma faali euh, maanaam bi Amari bi euh, maa ngi jéglu de bi Biram Yaasin buubu ba mu saayee te ka ko wuutu jël waajuram mu jigéen fal ko ak la ca xew ba biram ba yasin boobu dem àndee njaay sal jullit ya ñëw xeex ak jàmmeel ba faat ko mel na ni ñaareelu yëngu-yëngu walla ñaareelu fippu bi jullit yi fippu sëriñ si ci ndammeelu Amari Ngoone Ndeela Kumba ca la xewe ndax ak ndammeelam jullit yi sëriñ si sonn nañ ci lool lool lool lool xanaa ñu fàttali ni moom Amari Ngoone Ndeela Kumba mi moo jox maam Maaram Mbàkke leewu Mbàkke Bawol bi dëkk bii di Mbàkke Bawol dammeel bii di Amari Ngoone Ndella Kumba moo ko may maam maaram moom Amari Ngoone Ndella Kumba nag fa nga xamante ni bañ koo génnee fa la nekkoon te wàllu muy jàngaan dafa daal di jóge daal di ñëw mbul ndax nijaayam bi dama fàttim na bi mu ñëwee mbul jàmburi kajoor yi dajaloo dal di koy fal mu doon dameel keeñ moom nag bi mu faloo sëriñ si nekkoon kajoor dañoo dal di jóg jàmmaarloo ak moom la ko waral mooy am na ku bokkoon ci ñoom ma Lamine Sarr dëkkoon ci Aline Jama nga xamante ni moo maam maaram ñoom bokkoon nañu daara Amari Ngoone Ndeela Kumba moo yebal farakaba ba farakaba ndomb ak tànk lañ bu doonte ni ci sunu jamono ji mooy kiy armée bi le chef d'état-major des forces armées wax nañ ni fiiraange da daloon nijaayam Birima Fatim Penda ba mu génne ko mel na ni loole Amari Ngoone Ndeela Kumba bi mu faloo Malabine Sarr doon sëriñ bu bari mbooloo bari dongo di jàngale wax nañu ni am nañu wax ni dafa wax farakaba ba ni ko boo ko faatee rek danaa yokk sa nomb tànk ne nañu farakaba bi ñëw na ci careen jama ba def na fa lu mat at xam ngeen yoor yoor sëñ Amala Min Sarr nekk ca tuukar ba wéet fa farakaba ba fekk ko fa dal di koy faat loolee nag ba mu amee mu metti sëriñ si lool lool lool lool lool lool ñu daal di waajal seenub xare xam ngeen ni ab sëriñ mënta xeex moom la mu xam mooy daa ak xalimaak alluwa ab der ak kurusam waaye nag seen mbokk daara bi li amal amin saar mi dameel rey metti na leen ba ñu jóg ngir songi dameel xare bi ñu njëkk xare ñoom sëriñ si fa ñuy wax paalo fa la ñu tàmpaloo ak xareb Dameel Amari Ngoone Ndeela wax nañu ni ki jiite woon sëriñ si wala bokk bokk nañ ci njiit yi kañ doon wax maamu doon kilifa Tayba Tayba Njaay googu ci wetu Tiwaawan mooy doon moom maamu moom moo bàyyi songo ca ñu jiite woon sëriñ si ci la bokk ak kan Ahmadou Faxuja Jóob doon sëriñ kokki jamono yooyu di taaw sëriñ Maxtaar Ndumbe euh, safrla enfin euh, euh, woon sëriñ kokki waaye li ma bëgg wax mooy moom mooy taaw sëriñ Maxtaar Ndumbe mooy waajuru sëriñ kokki njaga isa mi nga xamante ni ñu bari ci ahlu Mbàkke mooy seen maam borom Daarul Muxti sëñ Moodu Moustapha sëñ Basiiru sëñ Mudaw Balla te Amadou Fakho Diemi mooy waajuru sëriñ Kokki Njaga Issa ndax ñooñu rek la woon déedéet Manoumbe Mbaye ak Serigne ñoom rekk Serius kajoor ak njaambur sep ño wadjal xare bobu ngir dal ci kaw damel Amari ngone ndela mi nga xamanteni mo fat mala min sar bu jama xex bu ñëk bi ñu ko xexé palo waaye xareb kajoor bi maanaam dammeel moo bom xareb sëriñ si ba ñuy jàpp ca dameel jàpp ca ay sëriñ yu baree bari xare ba ngura faa xujj moom it di doomi sëriñ kokki maxtaar numbe bokkoon na ca sëriñ sa ak sëriñ njaga isa di doomi ahmadou faxujja moom itam ca xare ba la bokkoon madun mbay moom itam ca xare ba la bokkoon xare ba metti lool waaye taxul sëriñ sa tàyyi dañoo waajaat songaat Damel ci wetu Pire waaye ñaareelu tàmpaloo ba itam taxul sëriñ sa am ca ndam ndax li ma waxoon rek ab sëriñ munta xeex waaye amoon nañu fit am jom ba moo tax loolu leen damel def faat seen mbokk moomu tax ñu jóg xeex ak moom gannaaw xare paalo boobu itam ñu songowaat Pire mu bomaat sëriñ si topp leen ñoom sëriñ si ba ni ñu dem ndakaaru ba ñu demee ndakaaru nag Maxtaar Maamu moo leen jàppale moo leen fat am nañu sax ñu wax ni ndakaaru ci la lewul ndakaaru ci la ñuy jotee ci lañu ñu nguyaay ba mu ba mu ba ñu àndeek Matar Maamu nag ca lañu jañ dameel Amari Ngoone Ndeela ak ñamu àndal ba ñu dellu Kajoor wax na sax ni lu mel ni tata wala léegi bu doon kii ñu ni miir la moom la ñu defoon ngir aar Ndakaaru muy île presqu'île du cap boobu nga xamante ni dameel Biram Yaasin boobu moo ko joxoon tubaab bi ci atum junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent kon Dameel Amari Ngoone Ndeela Kumba waññeeku na nag moo ko xareem ngir dellu si Kajoor muy Dameel boo xamante ni li mu faat ci sëriñ si ndax juróomi at yi mu njëkk a doon Dameel yépp li ko dale ci atum junne juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk juróom ak juróom da ko xeex ak sëriñ si mbokk yi bu ngeen bëggee xam amari Ngoone Ndeela fu mu mujj moog sëriñ si ak ndameelam da ngeen nuy topp ci ñaar fukkeelu pàcc bi ak juróom-ñaar muy vingt-septième épisode kon maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaax ngeen abonné rek ci seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV ba lu nu dugal rek ci vidéo ngeen man koo gis kon maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf